voilà c'est une émission Horizon 2012 Nous euh, ngi recevoir euh, maître maître Babou euh, avocat à la cour avocat également maître Abdoulaye Wade maître mën présenter présenter wu waa la xam. waaw man de ñi may dégg ci politique bi suis fi ministre président de président commission des lois suis naa directeur De la campagne Abdoulaye Wade suis li ma soxal pour euh, nous tuddati moy ci sama qualité euh manam Ablaye wad ndaw Abdoulaye wad Gambi lool la mom la ko mën wax. voilà ndaw Abdoulaye wad Gambi ciow amna ciow lu bari li nga xamné lu ci juddou moy 15 millions yi nga xamné uh, mom la ambassadeur bi wax ni joxewloo loko hmm. mu jur ciow lu doy war maître est ce que mën nga ci dalu ci touti sawar naa ci parce que motax mo wote te surtout indi len ay firnde manam ay pièces man biñ ma woyé dañ ni ma kai dem gambi premier tour ma ngi demone états-unis cho amu fi ñu jox mo ordre de mission ba ngi ni pour dem gambi donc yobbu khalis pour candidat Ablaye Wade dama ni cipp aéroport euh, ambassadeur bi ni daf ma yobbu kërëm man nañ fa def réunion ak ñeneen ñi fa la sunu coowoo jëk commencé maniko. man duma dem ambassade parce que ambassade bi sénégalais yépp ñoko ko bokk te fi politique la Moni ma mais Mamadou Diop Decroix bi mu ñëwé premier tour dafa jaar ambassade bi maniko ne ko su Il defee wax deug la Mamadou Diop Decroix ñëw na fi premier tour mais Mamadou Diop Decroix dafa yàkkamti won ndax auto lo indi su indee auto avant ñuy def ki bi ci bag bi dafa war a dellu mu bàyyi leen xaalis ba rek ñu woo ambassadeur bi ak quelques responsables ñu lekk xaalis ba loolu moo indi coow donc ba ma xamee loolu man ma ne du ma dem kër ambassadeur ba wax sama benn sœur Fatou Diakhoumpa président assemblée nationale bu njëkk la mu luyeel ma ci laa wax ambassadeur nag ni ko fekk ma foofu soo ma soxlaa boobu dimanche la dimanche bii passé ma dem sama hôtel summeekooguma sax sangooguma

dañu bëggoon sax jël sama bakkan. ah bon da nga ci xam dara xara rek. bi loolu wéyee donc man indi woon naa ay adresse su personnalité yu ma waroon a xool ma commencé di leen woo di leen woo di leen woo ba ñu d'accord ci nañu def maanaam tournée altine mais puisque sooy def tournée altine il faut nga am xaalis ma jël 5 millions ci 15 millions yi ma indi décharge baa ngi nii ñu défal mako ko en dalasi ah muy xaalis bu bare bari dañ ko def ci mbuus. ñu préparer dem ni kon suba ñu dem ñu loué auto yu bare bari le lendemain ñu commencé dem seeti murid yi seeti cantakun yi seeti bayfal yi ma ñëw ba ci euh, euh, marabu euh, Medina Gunaas yi groupe bu xale daal ci sama ko maître babu jox ñu suñu xaalis maître babu jox ñu suñu xaalis. kenn koo xam ne xàmmee naa ko ku gën a osé rek ma poñ ma ndax kooku mooy kiiwu euh, nu mu tuddati xaritu euh, sénatrice Awa Dieye Thiam coow li ni kur waaw jàppal fii jàppal fi ñeneen ñi àndoon ak man nag xëccante ba sama garam boobu bu xotteeku man ma dugg ci kër gi toog ñu woo police police jël xale yëpp jël leen dugal leen ci kaso bi donc xam nga foofu kii ba yàq na man daal di dem nag police di def sama déposition déposition porté plainte xale yi ni surtout nag ñi leen yebal. ñan ñoo leen yebal. ak si bul yàkkamti dana ñëw ndax xale yi ma koy wax seen lamiñ mhm. kooku leen di guddi la fi ma toogee foofu di kii immédiatement ambassadeur moom tam fekk ma fa. mu nit ni day porté plainte nag bi yoon contre man maître babu mhm. ah ma ah ambassadeur nag def na lu ëpp. commissaire central bi ni waaw jéem leen a rafetoo et commissaire central bi balaa dara xew bu jigéen waaw mhm. ma ni ko bindal plaintam mu daal di bind plainte ambassadeur fekk man yoruma sama ordre de mission mi ngi nii ma ko nag suba dina andi ordre de mission bi pour wane ni jotewuma ak ambassadeur dara mhm. ñu ñëw ci guddi ma téléphoné Sénégal wax ko le lendemain mardi kii big boss bi gëna big boss alors euh, gambi mo ñëw gis nga ko soo paree nga wax ma. Mhm. mo ñëw journaux yi. journaux Gambie yëpp kon ñu xëy rek xolal tu vois. maître dafa melni xaliss bobu boobu na deru Sénégal fofu ci Gambie wa kay fa la bëgg dem nak bi ñu ñëwee mardi ki moko jité jiite mhm. ambassadeur bi fait wax nañ ko dara ci guddi gi. te tiit dafa rek jox ma loxo. ma jox ko loxo man retiré plainte. ambassadeur ah, mais na dit fi de ma ne ko affaire plainte du ya ko def da un ko mhm. te dama lay wax fa ñuy réunion doo fa teg sa mhm. du fa ah. mu daal di d'accord ci loolu bi mu d'accordee ci loolu xale yi xale yi xam nga wax ay xale yi dafa naa plaignum voilà ma ni xale yi ñii samay doom lañu mais ñi leen indi woon ñoo ma intéressé baal naa xale yi ñu ñëw apologize comme ni ñu koy def mu ngi nii voilà insulte sénégalaise envoie pardon attaque mi ngi nii ñu kii mais xale yi benn xale bu bokkoon ci complot bi moom mu ñëw ni ma papa xam nga lu ñu leen naroon a def hôtel bi lañ leen naroon a fekk attaqué la ci sa néeg ah nangu xaalis bi hum. dans la nuit du dimanche à lundi avec l'ambassadeur avec la sénatrice Awa Dieye Thiam kon ñoom xanaa xaalis boobu 15 millions boobu nga xam ne dañ la yónni woon pour nga jox ko militants yi nekk Gambie. waaw ñoom xanaa dañ ko bëggoon a séddoo ci benn exactement waaw kay yaa ngi dugal affaire bi ndax premier tour loolu la ñu def awa euh, Mamadou Diop Decroix toogu fa parce que oto la indi woon il faut mu dem balaa bag bay tëj def leen bàyyil yooyu ambassadeur woo awa Dieye Thiam ak ñaari nit ñu seddoo xaalis bi. xanaa loolu tax ñu def vote foofu ca. voilà du vote sanction sax ñoo gagné mais nañu waroon a voté du noonu. bi ko yeneen gaa yi dégg nag ñu mer même avant may dem man Banjul wax nañ ma mer boobu ak xaalis bi ngi détourné ambassadeur nag loolu la bëggoon ma defaat noonu. motax ma ñew rek mu ni ma kañu dem ma jox la met xaliss bi ak ah, PDS dafa melni ciow li dafa gën dana agalé sama wax de parce que agalé guma may ma mokki d'accord met kon uh-huh. ma ngi talata uh-huh. ambassadeur ñun ko kay Sénégal rapatrier nañ ko ñew na xawma nak luy xew mais kérok la gëj gambi ma dess ak gañi militant bi ma dess ak militant yi nak ni len nak sama hôtel lañuy défé yépp alors là yalla may na ma fa ndam parce que ku bëggono a rey toog ba yag di la tàccu nga wara a sant xoolal décharge bi ah j'ai sousigné madame Awa diam do du wax naan la moom ma doon xeex Samba mbaw ak Ndeye Fatou tel déclarons avoir reçu de maître Abdoulaye Babou mandataire la somme de 15 millions de francs dama ko tek juk mhm. ndax 5 millions yu francs. yi man maa ko jël ni may naa leen ko xam nga wax naan la am 5 millions yu ma ki yoon ma may naa waaw mhm. en fait 5 millions boobu xam nga ñaata ci génn bi doon dem rek seti sëriñ si mais biñ ma attaqué dama bàyyi xaalis bi ci oto bi gars yi tibb lu leen neex ñu jël ko ñu jël ko kii sama collaborateur bi laa téléphoné Sénégal mu dem ci benn waay waa am correspondant Gambie mu teg fële 5 millions Ki jox ma 5 millions Gambi ma motli. mi ngi nii

750 millions 445 000 dollars. Ni location auto. ba ma dimanche lundi mardi mercredi jeudi may dem ak yu bari bari ñi doon and ak man ci mhm. premier truc deuxièmement hôtel comme est-ce que vous fay. Euh, salle bi mi troisième bi. 2300 yi y yi doon jël ay café yooyu ñu calculé ko 750 000 kon xaalis boobu euh, dafa duggoon ci dépense yu sew yi nga exactement exactement mhm. lu ci des kon en conséquence nous avons reçu de maître babu la somme de 14 millions 235 mhm. nit ñi

Moi, financement extérieur mon la gis li vivre j'ai démantelé un système mafieux ils étaient prêts troxalma Et yow xana xamo ci affaire bi amna ñuma ci maître Babou Khalis Khalis bi ci ñun nga Sénégal ci goudi gi wala ñeneen ci dess ni ma bi Sénégal ci gi parce que la rey nga waje ma wax dama ko saga mais maître lak nañ fi sa cœur waaw ñu ngi ni euh, bëggaat jëlaat sa bakkan ci 15. way euh, nga démanteler waat système mafia bi nga xam mu ngi ci biir. PDS politique jar ko maître. non dootul nek politique xam nga lu mi nek dignité lay nek même conférence de presse bi xam nga lu ko waral toujours dignité parce que ñi ma amal affaire instrumentaliser nañu benn journal office mu dal di génné ni au lieu de 15 millions maître Babou donne 14 millions est-ce que kooku laaj na ma et justificatif yangi ndaw si ma doon xeex moo signé xaalis bi Awa Dieye ah Samba et le représentant de la présidence pièces yëpp nek fi kon nak des fois politique amna mais dignité mokoy ki man nga ma imaginer man maître Babou may daw Gambie ñew Sénégal lu ñuy wax su ëllëgee maître Babou daw na duñ ko wax mm. honneur mo gën lépp beneen kii bi mënoon nga imaginer ma toog ci gaañ yi ni leen ah ma de dépensé naa ci 5 millions wante 5 millions yi gars yi sàcc nañ ko est-ce que danañ ma gëm ah immédiatement pour sama honneur mm-hmm. ma gagné 5 millions aujourd'hui est-ce que j'ai pas la tête euh, haute yéen journalistes yi yéen ñëpp gis ngeen tout le monde est convaincu mais il y a un système mafieux et li ma naqari système mafieux boobu Wade daf ciy perte yow nga génne sa xaalis ay centaines de millions pour nit ñi jàppale la ñu dagg xaalis ba pàccoo ko au lieu mu jur bànneex naqar lay jur ci ñeneen ñi ci des. mais maître est-ce que kon euh, ñu ngi nii ci deuxième tour bi dimanche mooy càppaandaw bi est-ce que foog nga ni euh, tey ak lii xew nii yëpp euh, Abdoulaye Wade est bien partie pour gagner élection yi. am naa yaakaar réponse bi am naa yaakaar ni danañ gagner parce que Abdoulaye Wade passé na loolu mais li wóor ba li yàqu indi. élément négatif c'est clair et net c'est malheureux pour le candidat Ablaye Wade joxe ne ay centaines de millions en tout cas pour l'extérieur mafia yi lekk nañ ci lu bare bari au lieu de créer ce xam ni luy jëm kanam la lu delloo ginnaaw lay euh, et c'est malheureux. maître léegi pour ñu l'ambassadeur euh, ambassadeur bi yàq na au Sénégal certes mais il na sa aussi euh, da nga koy porter plainte. non man baal naa des non yàqatul sama der. xam nga la yàqatul des j'ai réussi c'est mon objectif defna ma mission écarté il a été rappelé Les militants militant yi nañu ki ambassadeur encore une fois je ma chère, bëgg ndey awa mission accomplie. maître rapide vous rapide bonne chance. merci beaucoup